sëriñ Saaliwu ba ci Cheikh Mamadou Lamine Baar ak sëñ Cheikh Sidi Mokhtar ba ci sëñ Muntaxa mi nga xam ne moo leen jox ndigal ngir ñu def ko waaye nag ñu amele ko ci ki nga xam ne moo fi nekkal boroom daaru di sëriñ Basiiru Mbàkke ñu gën koo xam sëñ Basiiru Anta Ñang ñu koy ñaanal fan wu gudd lool ak wér ñu nekk fii nag ci kër sëñ Basiiru Mbàkke mu sëriñ Abbas mi nga xam ne mm, heure bi daaw moo ko màggaloon waaye yàlla ak dogalam mu jóge fi liggéey matal liggéeyam ñuy ñaan yàlla wanale kook seexul xaddim waaye wanale kook borom daaru di ñaanal sëñ Basiru mi nga xam ne moo toogi tamit jataayam yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko dëgg yàlla ku nu xam la bu yàgg ci ak njub ko xam ak baax lañ ko xam ak sàmm lañ ko xam kon toogaayam bi dañuy jàpp ne rek loola day yokk waaye du wàññeeku mukk te ñu ngi koy ñaanal suñu borom mi nga xam ne moo mën a sàmm mu sàmm ko lool ba mu gudd fan waaye mu am ak wér ba lim yéene liggéeyal Sëriñ tubaa lépp mu def ko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 وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكي سيدان الخديمية في من أنك نيلين دي نيو دلين زيار دي نيانا لسن منتقى مياق في لول تأندق بير دي كو نيانا لسرين بشير عن تنين خليفة بمام تشارنو برايم di ko ñaanal mu yàgg bi lool te wér ba àggale naal yépp di ñaanal it ki nga xam ne moo fi nekkal sëñ Abbas muy sëriñ Bachiru mi nga xam ne sëñ Abbas sëñ Bachiru Anta Ñaŋ la ko tudde moom it mu yàgg bi lool te ànd ak wér ak mboolem njaboot gi yépp ak mboolem julit gi yépp di sant bu baax ak di ndokkeel julit yépp ci weeru màgg wu tedd wi ñu nekk muy weeru Shaaban mi ngi ciy ndokkeel julit yépp yonent bi alayhi salaatu wasalaam da daan wax ne rajab shahrullahi shahbaana shahri ramadaan shahru ummati nee na rajab weeru yàlla shahbaan sama weera ramadaan weeru sama xeet la yonent boobu nga xam ne nag mooy borom weer wi nga xam ne lu yàlla bind moo ko ci gënal ba waa sawara sax bu ñuy yuuxu dañuy wax ne yaa laytana ataana allaha wa ataana rasula la leen duggal sawar la leen ko yóbbe lépp mooy ñàkk a topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon aw weeram bu ñëwee danañ ci ndokkeel julit yépp jële nañ ci soxna Aïcha radiallahu anha mu wax ne yonent bi ginnaaw weeru koor koor yi ngàtt nga yim daan def weer wi ëppoon lu mu ciy war mooy weeru Shaaban nee na mu laaj ko ko ne ko lu tax loolu nee na bi ne ko ne ko ci fukki fan ak juróom ci weeru Shaaban ci la ñuy gaaral jëfi jaam ñi fa kanamu seen borom ma bëgg bu ñuy gaaral samay jëf fekk ma amee weer wi it ci la xew-xew bu màgg ci lislaam amee woon muy li ñuy wax taxwilul xibla ndax yonente bi ak jullit yi dañ daan jublu xudsu ci njëlbeen yonente bi mébétoon yàlla defal ko xibla boppam ak aw xeetam ci weer wi ci la ko yàlla maye woon kon loolu xew-xew yu bari la waaye weer wi it ñu ciy ndokkeel waa Daaru Muxti yëpp ndax am na ay jagle yu baree bari yoo xam ne Cheikh Ibra Faty am na ko ci bokk na ca mas nañoo wax ne mas naa jóge fii dem ziyaare ji sëriñ bi njaareem bi mu àggee ba nuyu sëriñ bi sëriñ bi ne ko war ngaa sant yàlla ne ko dafa am lu ma la doon fàggul ci sa borom ba naagu woon ci sax ne da ko nangu ndax xaw a yeex waaye nangu na ko ci ci weeru Sha'ban wi ci la ko nangoo te loola bu amoon sa say noonu yëpp danañ la ndokk waaye pàggul naa la ko sa boroom ba may na ma ko te ci weer wi la ma ko maye ci weer wi it ci la borom daaru daje woon ak sëriñ bi ci ginnaaw bi mu ko dénkee liggéey bi dem ca tukki ba waaye ci weer wi it ci la dellu woon ca boromam yàlla ko yàlla gërëm borom daaru nag ngir waxtaane ko dana dana yomb lool ndax dafa am ay jëmm yoo xam ne taarix da leen di bind ci ay kayitam jamono bu nekk maas gu ñëw di leen jàng ba àddunay tukki ñooñu nag borom daaru moxti ca la bokk moom nag bu ñuy fàttali ko ay jikkoom wala ñu koy waxtaanee am na ñaari woykat kenn ki da ko doon woy ci arab ki ci des di ko woy ci wolof daanaka buñ sukkandikoo foofu rek mën nañoo xam kan mooy borom daaru naaru gànnaar ba da ko waxoon ni alhuda wan nada wa xosnu sifaati naa la minha muraadahu yibrafaati alhuda mooy ak njub alquran bu mu waxee ne alif laam mim dalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan la ca teg téere bépp bépp li muy jàngale mooy hudan hudan mooy nit ki fi mu xàmmee ba fi mu delloo ca boroomam defu fi lu lu naqari boroomam loolu mooy hudan kooku nag nee borom daaru moxti hudan lu ca nit di am rek am na ko ca waaye wan nadaa nadaa mooy mooy mooy tabe boo fàggoo wërsëg ba am ko nga delloowaat ko ci ci yoonu yàlla na waykat bu ko doon wax wa cheikh ma fi lxulqi bil ilmi wa tuqa nadirun lahu faaxal xalaaiqi bil busli kon ku ku tabe la woon waaye muamale jëflante ak mbokki jullitam yëpp ak mboolem àdduna bépp jëflante jëf jëf ju rafetit naaru gànnaar ba neen li ci nit di am rek boroom daaru moxti am na ko ca ki ko doon woy ci wolof da ko tënk daanaka da ko da koo da koo résumé ci lu gàtt gàtt wax ne moo bari diine bari ngor bari xam-xam te mun tawar ñi meb dogal xam la ko war wuutewul ak kun yónni la kon loolu boo ko se seggee da cay fekk jikko yu baree bari moom nag ci gàttal rek mu feeñe ci ñaari askan yu yu ràññiku ci réew mi yuñ xam muy Mbàkke ak Kokki ndax sëñ Mamoor Anta Sali mooy juróom maam Balla Aïcha maam Maharam ci wàllu kokki ki Faati Isa Njaga Isa Madu Faaxu Jamataar Ndumbe kon ci askan yu sell ay cosaan ci la bokk daanaka mën nañoo wax ne alxuraan ak leer ci la ci la juddu waaye ñu ñëw rek ci ay jikkoom bokk na ci buñ koy melal borom daaru jikko yi gën a ràññiku ci moom mooy koo xam ne dafa jël ay mbiram teg ko ci sharia ak xaqiiqa ni ponke woon sharia wax nañ ne dëkk bu mas a sanc jàkka ja mooy njëkk pare këru boppam te jàkka ja mooy mooy gën a taaru kër kër gëm dëkke ndax booba sàkketi weñ moo xew te da koy def sàkketi weñ suñ Musaa Ka dafa wax ne day seng jàkka ja saxal fa mbooloo saxal fa julli juróom moo yoolu jàkka ja it mooy doon imam ba ci waxtu yëpp moo fay moo fay moo fay moo fay julli ba tey sëñ Moussa Ka wax na ne ji ilimaan deesu ko jam moo maandu mësee fu gàggante bis mooy waadu mësee fu koo sàbbaal du jum du fàtte mës la jamaj ngir bamba moo koy atte loolu li muy tekki rek mooy bu tabbee ci julli gi ni muy joxe war ma digganteem ak boroomam ak loolu ni mu jafee julli mboolem li nga julli yëpp mu see mu see loolu bàyyi xel yàlla lay lay lay tekki waaye it jàkkam bu ko musaana sañc ku jàpp doo fa dugg wala nga tardé julli kenn nekk ci biir kër gi te tardé julli wax nañ ne am na alamaan jum daan teg yoo xam ne moom ngay fay boo ko amul dangay dem taxani lum guddi guddi wala mu tàng tàng dangay dem taxani kon moom foofu la foofu la tegoon charia wax nañ ne ca Daaru Koso am na ci koor goo xam ne dafa xaw a tàng mu dajale mbokk taalibe fa nekk yëpp ne leen képp koo xam ne mën ngaa boole koor gi ak liggéey bi nga boole ko képp koo xam ne mënoo ko nga bàyyi liggéey bi tey tey woor noonu la fonke woon sharia xaqiiqatu it noonu la ko noonu la ci demee woon waaye ba tey it buñ koy melal dañ koy melal ci ak noppi ndax noppi day day lu màgg ci ci lislaam yonent bi alayhi salaatu salaam dafa wax ne man somata naja ku noppi rek mucc nga te am na woykatu arab bu doon wax ne wa samtu xisnun lil fata min arrada wa qalla man charra lisaanuhu waqi maanaam nee na noppi sange la tata mooy lu am sécurité loo xam ne boo ci nekkee dara luy lore du la ca fekk ndax baraana ku am aw naqar ci àdduna te la ko yóbbe mooy aw làmmiñam sëñ Bachir Anta Ñang boo demee ci téeréem bi day wax ne maam Cerno laa yabusu bi binti shifatin benn baat lum néew néew du ko wax illa li hajati muhim lu wax rek njariñ lay doon waaye du toog di di di di waxtaan moom la sëñ Ibrahima Diop Machar di wax ne falasta illa dafi'an dararan aw xaadiyan wataran aw taliyan suwara aw naatiqan xikaman lu wax rek ak ay xikam lay doon waaye doonul woon koo xam ne daa siiwe woon ci wax ju bari moom ay jëfam daa ëppoon lool ay waxam waaye it ku siiwe woon la ci ak njàmbaar ndax li tektali ak njàmbaaram mooy bokk na ci pàkk bi ñu dëkke muy daaru moxti ñeen fukki kilomètre la la sanc ñu paate jëng dafa wax ne ñeen fukki kilomètre yu wér la cerno tooloo maa ko wër dinaa ko wax waxin wu wér ngeen xam ne kooki kenn la toolu 40 kilomètre carré yaakaar naa bari wut ci àdduna koo xam ne kenn nitu ko sanc te wax nañ ne biñ ko ko laajee dafa wax ne dama bañ lu àdduna yàgg-yàgg kenn ku bokk ci man di samp ab xeer ñu naan la sempil looloo tax mu fàgg tool bu toll noonu di ca liggéey ak di jàngale ak di jaamu yàlla waaye liy tegtale ak njàmbaarem wuutu gi wuutu sëriñ bi ginnaaw bi mu demee ci géej gi ba ko fa sëriñ ba bàyyee diir bu néew wax nañ ne gouverneur général da ko yónnee ab leesar ne na tuxu wala bi sàngam dana ko fa fekk lakk kër gi ci kawam fekk ba sëriñ bi di dem da ko dénkoon ne ko saa soo demee ba mënatoo fee nekk na nga toxu borom daaru ne ko bu ngeen demee ne leen ko saa su ma demee ba mënatuma fee nekk dinaa toxu waaye nag ay waxam moom ci boppam moom du ma tax a toxu ne ko lim na nag day lakk kër gi ci kaw njaboot gi moom kooku damay def ab doom ba pare doog koo def te boobu gouverneur général nit ñi mu wut wax mu wax waaye fitam ak njàmbaar moo ko ko moo ko ko mayoon waaye nag liy tegtale njàmbaar ba tey bokk na bëgg fetal ndax fetal ku ku ñemewu ñemewut ñemewu ko sëñ Moussa Ka dafa wax ne fu mu masa toog ñaari ngimiñ ya dar ko ak ñaari ndaama ya ca poos ba wër ko buy julli xit fetal ya daal di takk muy sànni jàkk wa di dox ba àgg loolu lépp ak njàmbaar la doon la doon la doon la doon tekki wax nañ ne mas naa nekk ca daarul mën naan la euh, mbaaxaan fekk ko fa ci néeg bi mu nekk war fas wu am doole di wër néeg bi ngir bëgg ko tiital di wër ba yàgg mu jël jasi jim yoroon dóor ko ci saket bi mu xotti ko borom daaru si ne ko da nga xamne saket bi du fay dang ko woron dóor ci kaw ki fayu ba xam wax nañu ne mom fekkan nako fi daaru moxti di ko ñaan aw fas ak dundu bim ko ko maye ba mu daf ne liko ko jaaxal moy kanam gi mu gis tay ak kanam gi mu gisoon koy tiital da kon jambar tigile won waye it mom Cheikh Ibrahima Fati liñuy wax patriote ci jamono ji man ngaa wax ne moo ko gën a def wala kenn gënu ko koo def ndax dafa waxoon wax ju siiw joo xam ne ba àddunay tukki ñu koy fàttaliku mooy la mu waxoon ne dugub bu fekkee bay rek moo koy maye dootuma ko ñàkk àgg na ci bay bay dimbale waa réew mi am na ci at moo xam ne moo joxe jiwu gerte ci senegal waaye am na ci at moo xam ne colon yi dañ koo bind leetar ne bu dimbalewul réew mi ren xiif dana am ci réew mi nga xam ne année boobu sàqam yi nekkoon ci daaru moxti ak ndàngu ak koso ak cinkóoli ci la bojj ba dundal réew moom ca jamono jooja am na ci at moo xam ne prisonniers yi ci Louga moo leen jox luñ doon dunde ngir jamono ju metti ba jamono demee ba neex ñu ñëw dikk ko delloo mu ñu leen kuy am ak a ñàkk duma ko lebal yàlla mi nga xam ne day am te du ñàkk yàlla laa lebaloon kon ku bëggoon am réewam la nga xam ne lu musaana liggéey ci la koy delloo waaye it ku sukkandiku woon ci ci boppam la tubaab yi dañ koo seereel ay jikko ne Ibra yi suñ nguurug àdduna gi moom amu ci soxla du ci wax du ci du du ci kii loolu nag li muy tekki mooy dafa sukkandiku woon ci boppam bañ leen a soxlaal dara wax nañ ñu ñoom it nañ ko ne mooy ki nga xam ne fii sëñ Touba teg ab tànkam rek fa la ko teg saa su Ahmadou Bamba tegee rek moom mooy teg loolu loolu lépp li muy tekki mooy ak njàmbaar momit a ak Cheikh Ibrahima Fati man nañu moy aminu sirri Cheikh Ahmadou Bamba Moy ki nga xamne moy mooy bi mu daan denc ay ay sakkereem Moy ki nga xamne moy it mooy joram ñiko serigne bi binde leg leg sax man nañ koy tuddé al mustakhlaful warith xamne moko moko moko moko dondu ñu bari buñ ko daan way ci ben khalifa serigne touba lañ koy tuddé moko moo ci ben bi fi sëñ Mor Anta Sali di nekk moom boroom daaru moo ko wuutu ci njàngale mi ba wax nañ ne am na bis boo xam ne sëriñ bi da koo yónni bi ñëwee ci jàngu bi daan ne moo wuutu seen sëriñ bi ba mu ñëw nga xam ne bis boobu sëñ bi moo moo moo jàngale moo joxe bind ya tukki yi mu daan def ci biir réew mi rek yu ndaw yi bu daan dem borom daaru Muxti lay wuutal ci ginnaawam moo koy yoral kër ga ba mu dellu ba secret yi nga xam ne dafa doxoon digganteem ak boroomam am na ci lettre boo xam da ko bind ne ko dafa am jaamu yàlla gum daan def da dafa bëgg mu wutu ko ca di ko def ba ba ba ba ba muy delsi bi sëriñ bi di dem ci géej giit it fekk na mu defal ko formation ba mu doon nit ku mat sëkk ndax li sëñ muusa Ka wax ne mësula fanaan àll du génn ja day xiif a kay rafle ba xëy am ja fu euh, fu sëñ Touba mës a jëm da koy yóbbaale mbooleem ci tukki yi mu doon def ci biir réew mi yëpp fu mu dem rek ñoom ñaarey ñoom ñaarey ñoom ñaarey ànd ba bi muy dem ci géej gi fekk li mu bëgg a def ci moom lépp def na ko mu jël mbooleem yoon wépp teg ko ci loxoom dénk ko ko waaye boroom daalu def ca ak mat ak njàmbaar ak dogu gu mat sëkk ba la ko sëñ Touba dénkoon bu doon benn la ba mu ñëwee fekk ko muy fukk sëñ Moussa Ka dafa wax ne biñ yóbbulee sëñ Touba kaamilub sëñ Modou Moustapha maam Thierno da caa boole hadiya yu bari nee na ba àggee sëñ Touba eh, dafa dafa muñ daan ne Thierno de bu yamoon ci lii rek matal na sëkk la ma ko dénkoon. mbooleeg mbindam taawam ba Hamdil Moustapha Cheikh Bamba yër ko muñ ne Thierno xat wafa bi sëriñ bi dellusee ba fekk ko eh, daarul mannaan fan ñe bi ko maam di def li ñu wax rendre compte di ko nga xamne ne na ba di ko desiti da ak damiti khalima ak desiti warga neen señ Touba da da day xol ba yag mu ne ko Thierno ndax li ak mandu la wala dafa am lo japp neena di xol di xol ba yag mu ne ko Thierno ndax bo demone ma des fi dana ko meuna dana dana ko meuna yore ni lool nak limi tekki moy lam ko denkon def na ca lu lu kawe ndortu ba taxna na bi dafa wax ne borom daaru paaka bëgg ma dañ ko cee dañ ko cee rende am na ci lettre boo xam ne ayuhal madbuuf bi xubbinaa la ko ca wax maa ngi yor téere boo xam ne la ca nekk ëpp na ëpp na ñeent fukki lettre xayaat Cheikh Ibra Fati bu eh, sëñ bu sëñ Cheikh Fati boo jàngee téere boobu la ca nekk ëpp na ñeent fukki lettre waaye lettre yi boo ko jàngee da gis ne li sëñ Muntaxa wax barki démb loolu mooy li li nga xam ne moo moo moo nekk borom daaru mooy ki sëñ Touba sampoon di wax ak moom muy wax ak taalibe yi am na ci lettre boo xam ne da ko caa digal ne ko na nga digal cheikh yëpp am ndigal lu leen jox ba ca jógee mu ne ko na nga na nga jigéen ñi ba ca jógee mu ne ko na nga digal ñëpp jullit yëpp ba mu ca mu ne ko na digal gone yi lettre am na ci lu fukk juróom yoo xam ne da ko cay jox ay ndigal ne ko waxal murid yi nangam nañ def nangam nañ bàyyi nangam nañ nañ nañ nañ nañ nañ bañ a def nangam loolu li muy tekki mooy moom la sampoon mooy modèle bi nga xam ne defar na ko ba mel ni mu bëgg mu samp ko ne leen roy leen ci kii kooku it moo daan jottali li nga xam ne moom la moom la moom la sëriñ bi di di wax lu kon kooku mooy a Cheikh Ibra Faty xam naa bu fekkee guddul wala ñu am luñ ci dolli rek ñu kiiwaat ko ci waaye daal mooy koo xam ne buñ ko doon wax mën nañ ne jàmbaar dëgg ci moom la yam tabe dëgg ci moom la yem fit dëgg ci moom la yem waaye nangoo jaamu yàlla ak liggéey ci boroom daaru mooti la yem salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu barakallaahu jërëjëf euh, sëriñ Modou Mbacke moom sëriñ Abbas toog nii ci kanamu kilifaam xam ngeen ab taalibe li muy baaxoo ak tooge ci kilifaam ni ay làmmiñam di lompañe ak ay tànkam ak ni muy kiyee waaye ànd ak loola lépp jàllale na message boo xamante ni bu yéeme la wax dëgg yàlla bi may dikk fii de yi ma indaale indaale naa coone fii ci kër gi waaye wallaahi la sim yëpp deñ na ndax waxtaan wi ni mu duggee ci sunu xol jeexital na ci bu baax a baax a baax moo tax li ñuy def rek dañ lay ñaanal suñu borom sàmm la te wéral la ba yàlla defal la li nga bëgg lépp yaag sa mag ju baax ji ngeen nekk fi te yàlla lii modèle la boo xamante ni waxtaan wi moom yéene woon naa moom mu tasaaroo ci àdduna bépp bépp bépp télé yëpp jëlandoo ko wax de yàlla bu mel nii moom sama xol moom wax de yàlla bu ma doole di commentaire sax dama dut xam fu ma koy teereen rek war naa am fu may teere mu naqari ñu bari kon salaamaaleykum wa rahmatullah